mais mais tey noo gisee affaire bi. affaire bi daal xam nga lu ma gis réew. Ah. yow mënoo nekk président. Ah. yàlla def fal la. ñu fal la sénégalais yi bëgg la fal la. Ah. nga war a nekk président ñu porte ñu porté la ñu ne diw xaalis bi mu yor rek nga daw laaxaru ci sëñ baara. Mm-hmm. nit bëgg a taxaw Ousmane Sonko faralu ma ko man ku ma xam-xam ne Ousmane Sonko ko ma ko. waxuma mm-hmm. ci moom dara. Mm-hmm. waaye réew ki war a nekk président yàlla rek moo ko xam. justice nag. magistrat yi yëpp mën neen dogal ne Ousmane Sonko du bokk mais bu yàlla dogalee mag Sall mënu ci dara Amadou Ba mënu ci dara hmm. te man ñaanuma yàlla réew mi waa APR toogaat parce que Sénégal day gën a yàqu parce que Sénégal baaxul bu ñu demee ba réew doomu ministre di dawal ay oto yu cent millions réew moom yàqu na ay doomu ministre di dawal oto cinquante millions doomu ministre yi bu leen pëlisee arrêté ci tali bi sax ñu saago ko seen papa dem génne leen mais ban réew leen nekk Sénégal nga foog réew mi baax la non yaanaa ñu ngi koy def si leen dëkk réew mi baaxul réew mi yàqu na Macky Sall daal bu ñu ko tere woon moom dina du nekk président kon na bàyyi doomu jaamur yi mu bëgg a jàpp ne duñ bokk ñi war a dem ak élection ñii def nañ leen contrôle judiciaire ñii mandat dépôt ñii takal nañ leen brassard comprendre nga waaw neen waxante dëgg nag réew moo ne ñi war a bokk élection yëpp ñu contrôle judiciaire ñii mandat dépôt waa léegi kon Amadou Ba moo kan ñooy dem élection mais tey tey dafa mel ne da ngeen jékki-jékkoon commencé woon jubilé ne man faralu ma songo bul ne ni ngeen commencé jubilé man faralu ma songo dama ne la songo rek laa bañ sama àdduna faralu ma ko ah. mais liñ koy def nii injustice la du yoon leen mhm. waxante dëgg nit nag mënoo ko jàpp tëj ko kaso mhm. mu nekk ci diggante dund ak dee ba pare ngay jëlaat ay daan di ko teg ci kaw man lu ma bañ bañ songo nit ku nekk kaso hmm? doo ko yéene lu bon leen mhm. waxante dëgg réew mi baaxul réew mii nii bu fekkee APR ñoo nar a toogaat ci réew mi man moo changé nationalité dem dëkk léegi mais tey la 17 set dañoo ne woon day tàng xam nga day kii may gis ñu dara. dama ne. Mhm. cour suprême. justice CBA CEDEAO ñëpp mën ngeen interdire Sonko du bokk mais bu yàlla ne day bokk kenn mënu ci dara c'est ça le problème. mbir yàllaa gën a fort loolu yëpp. mais instant bi instant bi cour suprême nee na xaw ma gars yi nee nañ bokkatul bokk affaire bi sax amatul. waaw amatul waa léegi bu yàlla ne waaw nag ñoom fu ñu jëm. mais yàlla nan la naan waaw. nguur gi nee na. déedéet bu yàlla ne waaw. Hmm. léegi ñoom nguur gi nan la ñuy def. xam nga tey ñii di xañ Sonko nii ne du bokk élection ñoom xamuñ ndax élection yi dina leen fekk ñuy dund. Hmm. ñii naan Ousmane Sonko du bokk est-ce que ñoom élection yi dina leen fekk incha allah. ah dina leen ah, fekk. ah mën naa am de. Hmm. gàllankoor mën mais ana ki doon ki ki ki jël naa ko mu ne xaw ma Sonko day bokk force day. bokk kuy Malick El Malick. waaw mais ku nekk tim xam nga état bi ñoom niñ ñu taxawee ni diw du bokk mais opposition bi ñoom lañ tax mais dama ne élection pour wax la dëgg mbay élection présidentielle du Sénégal ak loo bañ bañ Ousmane Sonko sans Ousmane Sonko loolu jaru élection di am Ousmane Sonko bu bokkul ci élection lan mooy nekk élection kon. kon da kon da waa léegi imaginer lu raar raam daan yëpp di tëgg te waali wëyul kon léegi lan la nit ñi di seedaan bokk wala baaramundi. imaginer waa Ramadaan yëpp dem mbay si di di tëgg ñii di guitare ñii Papis Ndiaye di piano te Waly ñëwul wëy léegi ñun lan la ñuy def bokk dañuy déglu musique kon balaa sax ñu teg Waly ci ufóor mbay saw bii di déglu dama ne ku ñemee dëgg ku dul naa fekk ne la Sénégal bi élection am fi sans Ousmane Sonko loolu du élection waaye ñoom dañoo xam ne Ousmane Sonko bu bokkee ci élection yi midi 8 heures 12 heures mu jël réew te réew mi nag dama lay wax bu fekkoon ne baax na duñ bañ Ousmane Sonko ko de xam nga Macky Sall moom président la Ousmane Sonko mënulu ko dara waaye ministre yi nekk fi démb ñu ni doon sol ay tiset doon ay sàcc bu ñu jëlee réew mi foog ñu foog ñu layoo ak justice parce que Macky Sall bi mu jëlee réew mi den ne ko Karim waat dafa lekk siñ xaalis ñu àtte ko tëj ko xalifa Sall bu dafa lekk suñ xaalis ñu àtte tëj ko waaw moom it tey bu wàccee Sonko bu jëlee réew mi foog ñu audité ay ministre am c'est ça le problème mbay Sénégal baaxul réew mi yàqu na yàqu na Mm-hmm. ñu demee ba doomu ministre di dawal oto cent million oto cinquante millions réew moom ban réew la seen papa yi liggéeyuñ ko Sénégal fii amul salaire bu lay may nga tabax sept kër ay R plus sept sept kër ay R plus huit loolu salaire mënu ko maye kon sàcc rek leen ne neen waxante dëgg mbay waaye balaa ñoo dee barki sayid naawoon di leen gox siñ xaalis bi ñu lekk wala ñu AVC dee réew mi moom réew mi doxul booy réew mi Sénégal dañu fekk kuy liggéey ñu jàppale la ñu fekk fenkat wala koo xam ne day wër di suq nit ñu koy jàppale Sénégal noonu la mel duñ duñ dimbale mu kuy liggéey kuy sàcc la ñuy dimbale kuy fen kuy suq ay nit du ñooñu la ñuy dimbale mais ban réew leen nekk leen waxante dëgg ban réew man dama jàpp ne gouvernement mag Sall man ki ma li ki ma gëm benn nit laa gis fu ma toog dama koy wax Matar Ba laa gis xawma ko xawma sax ku ko jege Matar Ba laa gis ci ministre Macky Sall mosul saaga nit mosul wax nit wax ju ñaaw benn ministre rek laa gis ci gouvernement Macky Sall mosuma dégg mu saaga. Amadou Ba tamit mosul wax dara non Amadou Ba xamuluma ko dara. man yàlla bu ma jiite kooku Amadou Ba. ah mais moo tax parce que moo la fi moo la fi moo moo président de. man déjà pël laa nationalité guinéen laa man amoon président Sénégal man sama président. Ah, <laughs> man jàll laa <laughs> léegi léegi élection su amee Amadou Ba ñu fal Amadou Ba nu ngeen waaw ah, man loolu yàlla na fekk ma dee bëgguma mu fekk ma may dund Amadou Ba nekk président ci réew mi yàlla mu ma fekk may dund wala bu ma fekkee may dund ma dem dëkk Gambie. Hmm. Hmm. ah. <laughs> cest dama lay wax lu garaaw Macky Sall. Hmm. liggéey na Sénégal de. def na lu baax waaye ñi mu àndal ñoo baaxul. c'est ça le problème Macky liggéey na mais ñi mu ñoo baaxul c'est ça le problème. Macky ñi mu àndal ñoo baaxul moom liggéey na de li Baara Gaye waxoon rek nee na Macky Sall ñi mu àndal kaw ba suuf kenn baaxul mais moom en personne moom baax na. Mhm. mais ñi mu àndal ñoo baaxul. Mhm. kon daal nangul ne Macky. non Macky baax na moom mu ngi liggéey mais ñi mu àndal ñoo baaxul ñi mu àndal ci sàcc leen ne ci fen leen ne ci luubal leen ne ci rawale xaalisu réew mi ci loolu leen ne. ndax bu réew mi di tàkk ñoom ñëpp keroog rek bi marché bi amee dëkk bi di tàkk ñoom ñëpp dañoo daw laaxatu ji Pape Malick Ndour rek moo doon toog ci tele yi di wax ministre yëpp dañoo daw laa ji mais ban réew leen ne en plus golo gu jóg ne day jaay laaj réew mi ñoo xam ne munuñ gañee sax seen kër toog ne dañuy laaj Sénégal mbay da xam ne dëgg mbay Sénégal amul ko wér waaye dama ne la élection présidentielle du Sénégal ah bi histoire politique amee ba tey ah opposition bi nga xam ne moo gën a populaire ah nga ne du bokk ci élection yi mais loolu du élection nañ waxante dëgg kon ngay réew mi jarul élection di am na Macky Sall xol ku ko neex mu ne ki moy nekk président c'est ça le problème jarul élection di am bi neen hmm. waxante dëgg Ousmane Sonko bu bokul ci élection yu présidentielle loolu du élection loolu jarul élection di am hmm. ah. Ousmane Sonko bu bokul kan moy gagner réew mi ah, parce que boy Sénégal nak so xolé boss boy jeex nañ de boy yëpp dem nañ micro quoi ñu doon japp mais boy xamal tax ñuy dem micro quoi hmm. parce que boy dañoo toog fii ci réew mi di liggéey. Mhm. xoolal sama xarit bee duudu. Mhm. dàll la teg nee di jaay. xoolal dàll la teg nee di jaay. waaw dàll léegi tey kii nii teg dàllam di jaay. yow benn nit fekk ko mu toog nga leb cinq peeru dàllam war ko jox vingt cinq mille joxoo ko. Mhm. waaw mais kooku su su meree day génn réew mi dem booy booy li tax ñuy dem man merewu ma leen de parce que réew mii ñu toog réew mi baax parce que boo jaayee ñu leb la. boo liggéey man su ma la waxoon man si li may liggéey mais am na ñi ñoo xam ne ñu ngi ma yoreel xaalis boo xam ne man ñeme mu ko wax nit mais réew mi ban réew la booy liggéey ñu yoreel la da ngay am grand yoo xam ne mënuñ ci yow 10 000 di jëlal ay gel appartement di leen ko fayal di leen jëndal ay oto mais yow mënuñ ci yow 10 000 léegi li ngay liggéey yow buñ buñ ko sa sa appartement yi nga yow di ko loué wala sa métier courtage bi ngay def buñ jëlee sa xaalis après yow ñooy ñu triandé la ñoom duñ la fay même bay Sénégal fi nit mën na xëy rek xaru man dama lay wax man mën na xëy rek nan ordre zero parce que liñ ma def ci luma naxé dafa bari réew mi ni mi doxé baaxul. Sénégal baaxul. kon ñu ñu ñu jàpp ne dal li nga mësa xaru. waaw ak fi ma gis réew mi ni mu nim nara doxé ni mën na nan ordre zero gëné de. waye élection présidentielle sans Ousmane Sonko ci Sénégal lolu élection. waaw jàpp doomu jaamu di tejj ko. ah ne du bokk élection waa ku nekk. dégg naa kii tëj nañ ko tey eh, yóbbu nañ ko tey. kan nit dof waa nit dof révolutionnaire la ci dëgg rek lay dox. xam mbay ak lu métti métti na nga na bu fekkee dëgg rek mooy tax ñuy dëgg moom mooy njëkk mooy mujj. Mhm. bu fekkee dëgg moo tax ñuy jàpp doomu jaamur di leen tëj leen tëj Sénégal yëpp. waaye may wax ne képp lu fi waaye àtte rek di nga ko àttewaat. Mhm. parce que nag jàpp doomu jaamur àtte ko tëj ko ci kaso gi 10 ans yow nga toog sa kër di añ. di reer di ndékki ak sa njaboot waaw loolu pour man jullit sax waru ko def waaye nag ku xam ne lu waay àtte fii di ko ko àttewaat bu leen neexee neen tëj Sénégal yëpp waaye lu waaye àtte di nga ko àttewaat jaajëf